Koura Koulibaly Diack donc di coordonner seen cellule partenariat dañ fi nekk si dañ fi euh, teewal docteur Oumou Kalsoum Ndiaye Ndaw mi nga xam ne mooy directeur général agence bi donc euh, di def liggéey bu am solo si liggéey wàllu santé donc euh, bu ministère de la santé di di def donc agence bi moom dañ ko fi teg pour que mu mun a doxal bu baax wàllu pharmacie pour que wàllu pharmacie bi mu mu dëgër ñu am ay procédures yu baax nga xam ni lépp luy garab lu ñu jëfandikoo si dëkk bi mu mun a wóor ñu saytu ko mu mun a wóor loolu moo tax agence bi ñu créé ko avril 2022 léegi agence bi dafa am fonction neuf fonction yoo xam ne moom la war a mettre en place fonction yooyu soo ko boolee yëpp dina mun a tax garab yi euh, ñu mun ko am mu disponible mu am qualité parce que xam ngeen ni depuis bi Covid bi amee donc gisoon nañ ni dañu amoon jafe-jafe pour am yenn garab bi ak yenn vaccin yi waaye fi mu nekk nii Sénégal moom def si jàngal lu bari mooy nii dafa bëgg a sécuriser population donc di fabriquer di defar fii si dëkk bi garab yi léegi nag pour mun ko defar mu leer ñu garab yooyu day ne garab yu qualité yoo xam ne mucc na ayib ñu def agence bi moom loolu mooy rôle am pour que garab yi nekk qualité mais aussi njëg bi tamit di yomb tamit loolu tamit garab yi tamit agence bi mooy fixé prix euh, euh, plan dañ defoon benn plan de kii relance indi daan daan mooy defar garab yi fii Sénégal léegi plan boobu bi ñu ko defee dañ ne fii ak 2035 euh, donc euh, genn wàllu li ñu soxla si garab war nañ ko mën a defar fii xam ngeen fi mu nekk nii li ñu defar néew na 5 pour cent rek la mais dañu bëgg a fii ak 2035 ñu mën a am 50 pour cent effectivement am nañ benn évaluation en 2025 dinañ am benn en 2030 benn en 2035 jafe jo jafe yooyu effectivement amoon na moo moo gënoon tax ñu teg fi agence bi parce que agence bi dina mun a régler jafe-jafe yooyu ndaxte agence bi moom su def su doxalee rôle doxal fonction yi rek euh, industrie bi pharmaceutique dinañ ko mën a suqali dinañu mën a def am autorisation yu yomb yu facile te dina jaar si yoon euh, léegi agence bi moom su fekkee ni moom euh, mettre na en place moyen yooyu ñooñu seen jafe-jafe yi dina wàññeeku bu baax dina wàññeeku bu baax ndaxte agence bi dafa indi ay moyens indi ay jumtukaay indi benn plateforme de sorte que léegi liggéey bi day gën a gaaw agence bi tamit am na moyen ak personnel boo xam ne kii euh, ancienne structure bi fi nekkoon direction pharmacie médicament amu ko woon agence bi tamit dafay dafay positionné aussi région yi nga xam ne dina mun a jege euh, ñooñu jege ñi ko soxla mun leen jàppale si seen liggéey bi ndax mu gaaw mu nekk liggéey bu mucc ay ayib si d'approvisionnement mook euh, ARP ñoo bokk liggéey bi si ministère de la santé may ku nekk da am sa léegi avant euh, ARP di ñëw amoon na lu ñu doon wax direction pharmacie médicament moom moo doon jouer rôle bi ak laboratoire national contrôle médicament ñoom ñoo doon saytu garab bi pour mu baax ñoom ñoo doon wax PNA yan garab ñoo baax yan garab la ñoo am autorisation circuler fii yan la euh, état Sénégal autorise léegi su ko defee PNA dem jënd ko daal di koy distribuer donc ñoom ñaar ñoo bokk liggéey bi. na ay médicament yu ñu defar mais am na tamit ay vaccin vaccin yi Covid bi wax nañ ko vaccin fièvre jaune nga xam ne Sénégal yàgg na di ko defar euh, moom daanaka mooy pays bu koy defar fii Afrique mais également comme ni seen collègue boo xam sànq rougeole bi donc lépp yoo xam ne daal xool nañ ko gis nañ ni moo moo mooy euh, mooy euh, moo ñuy dimbali pour que ñu mën a toppatoo feebar yi ñu gën a am solo si ñun yi gën a sonal donc yooyu la ñuy nekk di liggéey mën a am sax ñu defar vaccin si pali ah, ay garab la yoo xam ne dañ koy utiliser rek si faj maladie mooy par exemple ay yenn garab yu naan ay kii doliprane ay paracétamol am na tam ñuy defar ay kii perfusion ballon perfusion yu ñu koy yu ñu soxla am na ñu koy defar euh, mooy su salé yi mooy euh, sucré yi yooyu yëpp dañ soluté yi dañ koy defar waaw fi yooyu suñ ko retiré euh, état du Sénégal à travers agence bi moo ko def te loolu yëpp si kii sécuriser population yi loolu si liggéey bi la agence bi dafay saytu toujours garab yi ak produit yi jëfandikoo su gisee nii am na euh, benn jafe-jafe euh, gis na ni qualité bi baaxul wala am na lu ñu si notifié am na benn alerte daf koy téye def ko quarantaine pour saytu ko pour mu leer ko ni wóor na su dooree wóor nag mu daal di koy bàyyi su wóorul nag mu daal di koy mu daal di koy téye euh, temporairement loolu moo tax ñu ñëw fii si atelier bi atelier bi tey pour mun a tas kii bi nouvelle ARP bi la mais loi bu bees bi loi bi nga xam ne moom mooy permettre mooy tax liggéeyu pharmacie gën a baax gën a wóor gën a efficace fii si Sénégal te loolu agence bi mooy def boobu rôle mais ak acteurs yi moo tax ñu pro ñu convoqué pharmaciens yi comme ça ñu xam seen loi bu bees xam fu ñu war a liggéey ñu convoqué tam ñi nga xam ne ñooy bind garab yi mooy médecins yi sages-femmes infirmiers comme ça ñoom euh, euh, ki ñu xam bu baax nan lañu fan lañu war a teg seen tànk ak liggéey nan lañu mun si mën a jàpp mais aussi tamit bàjjenu gox yi relais communautaire yi parce que ñoom tam si biir commune communauté bi ñu mun leen di wax lan mooy garab bi lan mooy garab bu baax bu wóor ak suñu amee jafe-jafe si garab yi nan lañ koy mun a dootalee waa kër docteur dootalee ko agence bi ndax ñu wootu ci def li si war